coow ma fu mënti laa donc comme ni ñu ko waxee rek dañ ciy sof tuuti ndax temps bi daf ñoo xaw a xoj donc dañu xool yenn ci euh, li nga xam ne ni moom mooy sujet rek ñu jéem ko waxtaanee donc dañuy ñëw ci marathon budgétaire bi nga xam ne mi ngi am fële euh, ca pencum ndaw réew yi di assemblée nationale euh, rawatina ki nga xam ne ni moom moo di ministre du tourisme et des loisirs moom mi nga xam ne moom moo di Mame Mbaye Niang ginnaaw bi nga xam ne Guy Marius Sagna jël na li nga xam ne moom moo di kaddu moom Guy Marius Sagna comme ni ñu koy waxee à chaque fois mbokk internautes yi dañu koy tàccu à chaque fois ci ay intervention mm. parce que euh, am na ci boo xam ne nii moo leen marqué muy bu euh, bi mu janoo ak euh, ministre du tourisme comme ni ma ko waxee léegi nii di mambay ñaa fàttali na ko ne ko hôtel yi nga xam ne moom moo nekk ci Sénégal bëgguñoo tudd seen ay tour di def publicité mu nekk hôtel yu mag yi nga xam ne moo nekk ci Sénégal te am na ci yoo xam ne nii fii ci Sénégal fekk baax maanaam doomu réew mi ñoom ñoo ko jiite waaye itam am na ci yoo xam ne tubaab yi ñoom ñoo ko moom ci loolu la ko fàttali ne ko euh, daanaka euh, euh, dañuy use rek ñi nga xam ne ñoom ñooy employé yi fa nekk bokk na ci 48 heures yoo xam ne ñu ngi leen koy liggéeyloo amaana su weer bi deewee 40 heures rek lañ leen di fay kaasal na leen bu baax a baax te it nee na ko daal su fekkente ne lu ni mel mi ngi dugal alal ci Sénégal te ku ne xam na ne tourisme wàllu hôtel yi da cee am solo te Sénégal da cee war a boppam est-ce que duñ ci indi ay leeral waaye itam ñu taxaw bu baax a baax ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di travailleurs yi maanaam liggéeykat yi liggéey ci yooyu les hôtel euh, mu nekk nag euh, comme ni ñu ko waxee rek moom kaas na waaye itam nee na euh, Mame Mbaye bu fekkee dëgg sénégalais nga war nga na defoon en 2011 langaamu ci giri yu palais yi jamono ji nga defaat ko ndax travailleurs yi nga xam ne ni jamono ji sonn nañ lool lool lool ba fa sonn yem donc comme ni ñu koy waxee rek internet yi nañu koy jëlee ku ne xam na ne bu ñu xasee ba wax Guy Marius Sagna wala ñu partagé ko ñoom am na noo xam ne noonu lañ koy jëlee mooy euh, daggal nañ ko ticket gratuit boo xam ne nii euh, dañu ko def euh, ci seenu coobare xëy na waaye itam def nañu ko ci loo xam ne nii xëy na du leen amal njariñ ndaxte buñ dee xool Guy Marius Sagna daan na nekk koo xam ne nii danaan kaasal askan wi ci mbedd mi tey ñu daggal ko ticket yóbbu ko ci assemblée nationale mu taxaw fa di di kaas nekk na nag koo xam ne nii aussi nee nañu miin na bu baax a baax a baax te mën na wax bépp travailleur fii ci Sénégal xam privé moo xam public xam na seen i ay njàmbat ndax nee nañu bu ñu fàtte ni deux jours yu nekk rek di nga ko gis ci Sénégal wërngal këpp ak fépp fu mënti doon muy dimbali wala sax muy taxawu travailleurs yi nga xam ne tey jii day xam seenu njàmbat nee dafay neex lool ay intervention ñu koy déglu waaye tam ñu ciy bàyyi xel te it ministre yi nga xam ne ñoom ñooy dem foofee ci marathon budgétaire bi war nañu di bàyyi xel parce euh, daanaka heure bu jëlee euh, a ay député qui que ce soit buñ bu fekkente ne bëgg nañoo liggéey ak ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi wala sax ñu jàppale leen ci euh, euh, li ñu mën nee nañ buñ ko dégloo dinañ dégg daal te dinañ mën a jàpp bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ni tey jii ñu ngi ko moom ngi koy amal Euh, wàccul yoon benn yoon yi taxoon ñu fal ko ca euh, pencum ndawu réew ma je pense que mu ngi koy doxee bu baax a baax coxo ñu bàyyi la nga daal jàll ci beneen point. d'accord comme waxtu bi xoj ba tey jii nañu ko rek euh, fas yéene defee nii awa. Mhm. daal di ñëw nag ci waxum troisième mandat ba tey jii mi ngi wëy di nekk nag waxtaanukaay wala sax waxukaay ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk sénégalais yi waaye dañu seetlu aussi ki nga xam ne moom moo di Doudou Wade ki nga xam ne moom moo di Awa Diom Ndiaye moo ko dalaloon fii ci kër gi. ci émission Euh, bi nga xam ne moom moo di ci mhm. mais ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi dañu intéressé wu bu baax a baax euh, ci mhm. boobule émission mhm. parce que dañu dagg benn euh, paragraphe boo xam ne nii ñu ngi koy daanaka publier boobu ba tey ci réseau sociaux yi bokk na ci wàllum troisième mandat ak du Doudou na mu ca àddoo bokk na ci moom Doudou Wade nee na Euh, troisième mandat bi bu ñu ko dee wax nee na Awa Diop Ndiaye xam nga man xam naa sénégalais xam nañu ne président Macky Sall boobu ba tey day wax muy dañ day wax wax joo xam ne du tegu benn yoon amul fula amul dëgg te it dañ koy wax gis à chaque fois comme wax waxeet bañ doon euh, jiiñ mm-hmm. euh, ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Wade rek moom lay defaat loolu la ko la ko la ko wax mm-hmm. waaye tam nee na daal euh, troisième mandat bu ko defee non seulement dina wor askanu Sénégal mais itam dina wor ñoo xam ne nii tey ji ña nga barsàq tëdd mm-hmm. maanaam dañ ñoo dëddu bokk na ci xalif généraux yi nga xam ne lim na leen ñu ci bari bari ñoo xam ne nii génn nañu àdduna ci dix ans yi nga xam ne wala neuf ans yi xam ne Sall mu ngi ko fi toog nee na déjà wor na leen. Mhm. bari na ay ay tur yu mu tudd ne su ko defee rek dina leen wor parce que du lii la digaale woon ak ñoom. te lu ni mel bu fekkente ne soofantal na waxi sénégalais yi. Mhm. wala xëy na jàpp na ne waxi sénégalais yi amul na bàyyi xel ci ñi nga xam ne dafa digaale woon ak ñoom te tey jii suuf féete kaw. Mhm. Euh, na ci bàyyi a baax bokk na ci xalif généraux comme ni ma ko waxee ak yeneen ci ay sénégalais yoo xam ne nii nee na waxtaan ak ñoom te gis na ni moom dafa demaat sax ba ci buntu armeer yi mu waxaat ak ñoom lu ni mel internet yi nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax te it waxi duudu wàdd jooju daanaka ñoom marqué na leen te it bàyyi nañ ci xel euh, bu baax a baax donte ne tam ci biir wax ji euh, sabote nañ ci duudu wàdd fàttali nañ ko euh, mantooram di di kilifaam di président Abdoulaye Wade en 2009 2010 ba 2011 lan la fi waxoon wax waxeet jaak ñoom seen nee nañu ko na déglu tam ba tey ji waxi duudu wàdd ji ndax lu jara bàyyi xel la su fekkente ne moom dundoon na ko hmm. bu baax dundoon na ko ci jamono jooju daanaka ku a jox Euh, euh, ay conseil la te exemple la euh, ci ñoom ñi nga xam ne en 2011 ñoom ñoo doon xëccoo troisième mandat ba président Abdoulaye Wade jotoon ko fee laaj ak génn bu ñaaw bi ñu fi génnee ak ñoom seen nit yi ci ñàkk seen bakkan donc ku placé la pour wax ko jox ko ay conseil ku placé la pour wax ko ne ko bul dugg ci lu ni mel ndax soo ci duggee di nga dund lu raw li président Abdoulaye Wade duggoon ba tax na tam ba tey mbokk internautes mm-hmm. comme ni ñu koy defee de ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ngay gaynde gayndey Sénégal yi laataa rek ñuy janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Hollande euh, moom président Macky Sall ku ne xam ne tam ba mu ko defee euh, ba pare euh, kii di Kalidou Koulibaly di capitaine de Lions daf ko yëkkati ab mayo comme ni ñu koy defee rek l'accoutumée daal di ko yëkkati ab mayo boo xam ne ñu ngi ca def Macky Sall bind ca 27 donc lu ni mel aussi dafa tax ñii di euh, euh, internautes yi bàyyi ci seen xel bu baax a baax indi l'article 27 bi nga xam ne ni dafa aaya dafa tere li nga xam ne ni moom mooy troisième mandat kenn du ko fi kenn du ko fi amee ba tax na ñu bari bari ci internautes yi comme noonu rek lañ def di ko ko fàttali gis nga ni troisième mandat dañu ko fiy tere euh, bul ko sax jéem slogan yi gën a génnaat am na cam ñu ñëw baat ak tontu la gis nga Assane Ndaw mi nee na vive le trois deuxième quinquennat comme ni ñu koy waxee rek dañu génn seen beneen slogan bu bees li ñu làqatu ci slogan boobu moom mooy que waxatuñu troisième mandat parce que dañu jàpp ne ça sonne ça sonne mal euh, euh, euh, dans les esprits looloo tax ñu génne deuxième quinquennat boobu xëy na seen slogan bu bees la pour lewal wala sax pour dëggal troisième candidature bi nga xam ne président Macky Sall ñu ngi ko koy séentoo ba léegi àddu ci donc mu mel ni rek baat ak tontu la comme ni nga ko gisee ci biir li nga xam ne ni tey ji moom mooy biir commentaire yi sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci internet bi di ci bind ak ci wax ñoom ñu ngi koy waxante bu baax a baax bu kii tontoo lii mhm. kii wax leneen euh, am na ci sax ku dem banaan bul ma ko bas dama koy wax euh, mu jeex euh, article 27 la ñu wax te it yàlla du juum mhm. daanaka moo ñu ko defal nii te président Macky Sall bu xoolee ci mayub dina xam ne am na signe bu bu bu bu doy waar bu ñu ko defal ci li nga xam ne ni moom moo di ci boobule boobule boobule mayo en tout cas sénégalais yi coow <laughs> ñu ngi ko koy misaale ci anam bu ne mhm. <laughs> di ko wan ni que en tout cas bëgguñu itam wax dëgg yàlla war naa mën a génne par la grande porte mhm. bañ fee indi ay mbir yoo xamante ne amaan ñu bëri bëri mën nañ fee mhm. ñàkk seen bakkan wala ay fitna dina fi yeewaat fii ci Sénégal surtout na ngay jàkkaarloo ak sénégalais yu am fulla sénégalais yoo xam ne ni euh, euh, pays bu souverain lañ euh, mhm. souverain la comme ni ñu koy waxee à chaque fois te it seen souveraineté daanaka dénkuñu ko kenn dañu ko téye gàddul ko seen bopp te xam naa ne fulla ak fayda goo xam ne ni sénégalais ñu ngi koy xaar de boo xam ne ni na ñu ngi koy ñu ngi wax bu baax a baax donc dañuy ñëw ba tey ci wàllu politique bala ñuy jeexal daal di wax ci ki nga xam ne moom moo di Moustapha Niass ku ne xam na ni jamono ji euh, parti ci bari wala ñoom ñu ci bari ñu ngi defaruwaat ku ci nekk yaa ngay euh, defaat ay congrès ku ci nekk di dëggalaat sa bopp ndax ñu ngi jëm ci ay présidentielles ak yeneen mais euh, Moustapha Niass di jiite AFP moom moomee nga xam ne ni nag moom moo yëkk ci ay kàddu ci wàllum jaayum carte bi nga xam ne gis nañu jamono jii waa APR ñu ngi koy def ci jaay bi seeni carte ñii di waa Pastef ñu ngi koy def ñeneen ak ñeneen ci ay parti euh, moo xam mouvement ñu ngi koy def jamono jii moom ci la yëkki ay kàddu nee na daal euh, boo dee xool carte yi ñu koy jaayee ay cent francs euh, trois cent francs moom dafay préféré jël cinquante mille cartes yoo xam ne da daal di pasare da koy daal di pasare wala sax jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ay militant wu AFP yoo xam ne nee na dafa jàpp ne jamono ji mën nañ leen a jaayee carte bi à cent francs wala trois cent francs te duñu mën am njëg gi maanaam duñu am cent francs yoo xam ne dinañ ko mën a jënde boobule carte wala trois cent nee loolu tax ndax day yëkkati cinquante mille cartes daal leen koy baaxee mais li ci gën a euh, doy waar gën cee neex gis nga ci biir commentaire ñu bari bari ci euh, internet yi la ñu wax moom mooy que jàpp ñu ne AFP am na cinquante mille euh, militants yoo xam ne. Mm. bu ñu leen mayee carte dara dina fa des kon ñoom lan la ñuy jaay nee nañu na xel xalaataat xelam bu baax a baax est-ce que cinquante mille cartes yi muy wax est-ce que am na ñoo xam ne dina dina leen ko may ci ay ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ay lii ba tax na tam dem nañu tam bay gën a soril seen ay xalaat nee nañu kon ñi jege Abdou euh, président Macky Sall bu baax mm. xam na ne dëkk bi metti na métti goo xam ne moom ay militant mënuñu am cent franc cent franc maanaam boo ko digoon xale bi wala nga wax ko ko mën na koo génneel boppam nee kon mm-hmm. yëg na métit gi te pourtant loolu mu ngi ci dëxanu mm. euh, du wax ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall dëgg ba tax na mu koy mu ko waxee ko beneen côté boo xam ne ni xëy na Séné internet yi noonu lañ ko gisee. l'esprit mm-hmm. mm-hmm. de l'appel a dégg li ma leen wax. Mhm, mhm. Mhm. ma ne l' esprit de l' appel du 16 juin 1999 depuis New York a été mooy lan un parti part à la conquête du pouvoir. non pas day nekk euh, euh, ci ci ñu lay téye di la tete mel ni ku lay tete. AFP moo njëkk jitu APR waaye tey am AFP comme pokkotaanu APR. <laughs> léegi xoolal ñaata permanence lañu amoon. permanence su AFP yëpp tëj nañ. tey lan moo gën a kii lii rey lii li mu doon critiquer PS. moo am AFP parachutage tey xoolal tey AFP kañ nga mën a dégg renouvellement structure mi bul xam kañ la. te naka la ñeneen ñi nga xam ne dañu mer xoolal chaque fois am na ay dissidence. gaxu ak ay nitam dem nañ. loolu yëpp tey tey conséquence directe mooy lenn tey. Hmm. Alioune Sarr anamu isolé nañ ko. Hmm. parachutage boobu nag rayon bu ñu doon critiqué ci PS moo am ci AFP te mooy rey seen parti. wallaay te dee nañu bu yàgg na comme ni ma koy waxee rek jaratuñu fi dara maanaam fiftim sax jaratuñu ko ci biir euh, biir Sénégal donc dañuy ñëw jeexalee ci biir. parce que dañuy gis euh, ay euh, li nga xam ne ni tey ji moom mooy ay ñaawteef yoo xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci Sénégal tey gis nañu le journal Libération daal di ci génn tey ji mu di ay découverte troublante yoo xam ne ni ay euh, cëru nit la ñuy fekk ci ay bërëb ñu ko fay suul amaana du ñu gis bopp du ñu gis euh, yaram mais dañu gis ay tànk ak loxo yoo xam ne ñu ngi koy suul donc euh, ci péage bi nee nañu gis nañu fi benn jambe boo xam ne dañu ko amputé tànk bu ñu dagg ñu def ko ci benn sachet bu bleu daal di koy sànni ci fi nga xam ne ni moom moo di ci diggante toglu toglu waaw ak sikat bi nga xam ne ni ñu ngi nekk ci yoonu fi nga xam ne ni moom moo di ci péage bi donc ba tey jii nee nañu vendredi bi passé aussi ca jas gisoon nañu fa euh, benn benn benn beneen découvre macabre boo xam ne ni tànk tam la ñu gis ñu daal di ko fay suul ñaari tànk yoo xam ne ñu suul ko fa donc nee nañu euh, lu ni mel mu ngi bëgg bari ci Sénégal te fan yii nii gisuñu nit ñi di ci wax gisuñu njàmbat di ci dikk te amaana ay doomu Sénégal ñoom ñooy dund lu ni mel xamuñu lan moo ko andi xamuñu lu koy def mais tam ñu bari bari euh, ci internet yi dañu attirer attention sénégalais yi nee ñu jaratul nit di guddee fenn insécurité bi bari na lool rawatina ñu ne un an moom moo des ci ay élection présidentielle yoo xam ne mm. xam na Sénégal nañu koy jëlee esprit yi fa muy tollu xale yi ñu war a denc euh, daanaka ñu bari bari ci ay ay ay doomu aadama yoo xam ne dañ leen di wax ne leen nañu nañu tëju bu ñu génn yenn heure yi tey bu ñu doxantu fenn fi donc insécurité la ñuy dund euh, ku ne